du sénégalais yi kese même su fekkente ne c'était en wolof euh, mbir mi moo yegg foo xam ne xëy na ñu gis loo xam ne tàmmuñu ko woon gis ci seen politique bi ndax ñëpp xam na ne président Ousmane Sonko pratiquement njabootam mosuñu feeñ ci wàllum politique am mm-hmm. euh, bu yëf yi yeggee foo xam ne nii ñoom euh, nekkul ci cadre politique parce que il faut ñu déconnecter les choses Euh, c'est pas quelque chose boo xam ne ñun par exemple en tant que SNCOM dañ ko jël pour utiliser ko comme arme politique pas du tout euh, dimension humaine la euh, nit la ak njabootam noonu la ko yaayam mënoon a defee wala doomam wala keneen dem ba yegg foo xam ne boolu mu ñu kaayam xëy na fees na wala en tout cas tiitaange dikkal na ko ndax ñoom ñoo bokk ci rare personnes yi nga xam ne léegi léegi dinañ am possibilité gis président Ousmane Sonko ci anam yu mu nekk donc li ñuy yëg ñoom ba mu wax loo leen euh, mën na mën na nekk loo xamante ne nii boo boo jëlee tuuti recul dinga nga ko comprendre euh, ci cadre boobu la ñu defee seen sortie démb ak euh, Pape Alé Niang ñu dikkaat ci lu bëree bëri par rapport ak ni nga xam ne moom la président Ousmane Sonko di dundee actuellement incarcération bi waaye ñoom ni ñu koy dundee ak surtout ni ñuy dundee xoqatal ak jaay doole bi nga xam ne seen borom kër ak ñoom ci seen bopp parce que jaay doole bi bu yemoon ci président Ousmane Sonko kese xëy na euh, ñu mën a wax ne politique politique la mais li lay won ne dafa jéggi président Ousmane Sonko dafa jéggi mbirum politique dafa yegg ci mbirum euh, xëy na mbañeel lañ koy wax wala coxorte goo bu amul àpp goo xam ne tax na ba dañ ciy laaxaale njabootam ba ci sax ay dëkkandoom ndax euh, ku déglu démb bi ñuy expliquer tëj bi leen tëjoon lu ëpp juróom fukki fan ak juróom mhm. naka lañ ko dundee ak traumatisme bi ñu dund ak euh, xale yi ak maanaam dëkkandoo yeeg yépp da ngay laaj ndax Sénégal la nekk wala ndax ay sénégalais ñoo ñuy jiite. Mhm. parce que kenn nu woon a xalaat ne ak Sénégal ni mu mel ni mu bindoo ñëpp bokk ñëpp yéenante jàmm ñëpp bëggal seen moroom lu baax dinañ yegg ci di doomu aadama fitna yu ni mel. ci loo xam ne dara dara lalu ko lu dul dem ba jàpp ne kii amatuloo feneen foo jaar pour arrêter ko politiquement nga ne léegi dinaa utiliser doole état dinaa utiliser mmh. lépp loo xamante ne ni mën naa ko ci teg ko fitna goo xamante ne ni moom ak njabootam ba xëy na génnee ko ci cadre politique génne ko ci lépp loo xamante ne nii dina mën a doon euh, ëllëg lu muy mën a taxawal ci réew mi. que pour yow ngir faagaagal ko tout ce qui s'est passé dañ ko génne euh, ci ci cadre politique ça veut dire que les propos yoo xamante ne yu mu tëniroon euh, waruñu ko jël inclure ko ci ci ci ci ci justice peut-être. parce que on a on avait entendu peut-être le président de la République soutenir yenn propos yi. on s'est même demandé si le président de la République Abdoulaye Wade su amoon même logique ndax aujourd'hui on avait parlé foofu laa bëggoon a ñëw xam nga li ñu teg président Ousmane Sonko mu tegoo ko nag ànd ceeg ngëm yàlla mu ñu tegoon lu tonni tal ay ni Macky Sall waxuma la li Sonko di wax waaye dina def piir mbaa mu bàyyi politique man moom man gëm naa ne moom xam na ne àttanul li mu teg président Ousmane Sonko te président Sonko yàgg na ko wax bu fekkonte ne tamit dawaloon na tuuti affaire de gentleman comme ni ko président Abdoulaye Wade doon defee. Mm. yaakaar naa ne bu xelam dawoon tuuti am na loo xam ne du ci dugg. ndax bu ko président Abdoulaye Wade toppoon ci ay waxam ak i jëfam xëy na heure bi leneen lay taal waaye du nekk président de la république. parce que euh, xëy na fàtte dafa gaaw mais gis nañ ci doon wax ni bu policiers yi taxawee suñu kanam dañ leen di fël jàll. gis nañ ki doon wax ni dañuy dem palais déloger président Abdoulaye Wade gis nañ ki ñu wax ne moo voté sans carte d'identité force porte ak yeneen ak yeneen yoo xam ne vidéo yaa ngi daw var yaa ngi daw Mais est-ce que c'est comparable euh, est que c'est comparable non, par rapport quand même ak yenn propos yi président la République dinañu rey mbaa ñu rey ko est euh, comparer ces déclarations xam nga ki wax affirmer lu ni mel ak ki nga xam ne dafa teg condition parce que président Ousmane Sonko ci condition lay waxee saa su nekk ñëpp xam nañ ne président Sonko bi mu see ci langue politique gi mook Pastef wax fa dëgg yàlla ak lu ñu bañ bañ bañ ak lu ñu ñàkk jox gëdd war nañu nangu ni bi ñu ñëwee ñun dañoo indi la force de l'argument et non l'argument de la force ñun dañu ñëw ne dañuy jàmmaarlook benn système boo xam ne jàpp na ne moo xoj Sénégal ba mënul jóge ci guute gi mu nekk te système boobu lii ak lii ak lii màndarga yi ñooy wane ni mu xoje senegal di wane ñoom seen gestion ni mu ñàkkee baax par rapport ak lii askan wi di xaar di yee askan wi di def ay proposition di def ay débat d'idées au début comme lii ma Mahatma di doon wax dañ lay xeep mujj jigéen ñu lay sax kekkantoo dem ba mu yàgg nag ñu commencé la xeex après nga gañe ci xeex ba nag la ñu nekk xëy na at yi weesu ndax ca njëlbeen nga xëy na faalewuñu woon waaye bi ñu demee ba gis ne askan waa ñuy jox nopp ci la ñu ñëw violence bi njëkk am bi nga xam ne président Macky Sall perpétré na ko ci président Ousmane Sonko mooy daf ko dàq koo xam ne da juddoo ci réew mi màggee fi jàng bokk meilleur nekk meilleur de ta génération nekk impôt et domaine mën a taxaw ne def naa fi fukki at ak juróom ku gis fukki dërëm boo xam ne randal naa ko tëj ma à vie Sénégal njiitu réew lay tànn te njiitu réew bi daf ci soxla koo xam ne dina maandu ci alalu askan bi wax ma ñi nekk di yootu tey bañ leen di tudd ñiy jàll ko dem ak dikk kenn koo xamante ne nii wane nag maandute ci alalu askan bi président Sonko taxaw wan leen loolu loolu képp rek doyoon na pour ñu xam ne du seen moroom ci buñ ko dénkee réew mi par rapport ak na mu fas yéenaa yaxanalee alalu askan wi donc nga rajee ko mhm. mu muñ ko gëmee ko yàlla mu jóge fa doon député nekk député bi marqué histoire du Sénégal parce que bu ñu fàtte président Ousmane Sonko législature am lan la doon teg ak ñaata proposition de loi la def ak ñaata question écrite la déposé ak naka la doon jàmmarloo ñi nga xam ne ñoo yor nguur gi ba nit ñu yaakaar ne sax moom moo amoon majorité parlementaire. d'accord. Ah. nga jóge fa nag ne léegi da ngay créer complot loolu yëpp jàllul nga wax ay waxu rebelle jàllul terrorisme jàllul dara jàllul nga dem wut sa benn complot bu salte utiliser jigéen. ngir na léegi dama koy faagaagal ngir xëy na tas këram ngir yàq image ngir yàq deram ngir fexe ba du jarati dara ci Sénégal ngir won sénégalais yi ne kii ngeen yaakaar ne mooy waaja du waaja moo ñu ne yan képp wala ñu ñoo ko gën mais du ñoom du ñu mës a doon Sonko Sonko du mës a doon ñoom parce que daf leen raw début. on a vu hier euh, peut-être yaa ngi koy wax ci sa début propos ne que sortie bu eh, jabaram yi def euh, peut-être du politique mais on a entendu quand même euh, ñuy demander clémence peut-être kii di président de la République ak euh, sa femme Marième Faye Sall est-ce que euh, ça peut engager d'une part et d'autre wala voilà, de de de de quelconque manière. yéen seen ay position mënul engager la parti mënul engager suñu ay position encore une fois nee na ak njaboot moo doon wax wax fa dëgg yàlla dañ leen di nangul lépp loo xam ne wax nañu ko fa ndax lañuy dund ñoom di ko yëkk ak anam ya ñu fekkee président Ousmane Sonko ku dem bañ naan la yëgatul genn wàll wetam gi euh, wetu gauche et cetera loolu xam na lan lay firndeel ñoom ñoo yegg ci niveau boo xam ne xëy na ñu jàpp ne ah dese na tuuti humanisme ci Macky sàll ak ñi nga xam ne ñoom la àndal ñu ne dañ koy lancer appel dañ koy ñaan mais man awma ci yaakaar bu dëgg rek taxee may wax mhm. am nañ ci nag droit dina ma bett lool seen ñaan googu ñee dégg ko buñ ci reetaanul sax moomay moomay jaaxal <laughs> parce que dafa am loo xam ne boo ko xasee bay comporté wak ay doomu aadama da ngay toog nga poser la question ne ñii est-ce que am na tuuti tuuti yërmande wala tuuti humanisme bu des ci seen xool parce que mënuloo comprendre nga jël plus de mille soixante personnes yoo xamante ne nii ay soutien de famille lañ ay maire lañ ay médecin lañu ay sëriñu daara lañu ñoo xam ne amu ci kenn koo xam ne ba nga juddoog léegi mës nga amalanteeg yoon mës nga rey nit mës nga sàcc alalu jàmbur mës nga def dara seen benn tort mooy gëm benn projet nekk ci projet bi di défendre ki nga xam ne moo jiital projet bi. l'acharnement selon mais c'est plus que de l'acharnement c'est de la méchanceté inexplicable ngaj ne ñëpp foog ma faagaagal leen kenn du wax ku wax ma tëj ku wax ma nangam mais gis nga loolu boo koy def yaakaar ne da nga jël place yàlla ci kaw suuf c'est parce que nag euh, dangaa desee xam sunu boroom naka lay dikkee ak buy joxe nguur naka la koy joxe ak bu koy biif naka la koy bife moo tax ñoom ñu jàpp ne cette violence d'État ñu jàpp ne lépp li nga xam ne teg nañ ko ci seen loxo mooy di ay pouvoir